am leen dem ngeen abonné ci Tivaouane ndax mooy li nga xamante télé bu baax bi ku ci abonné di nga gis loo mës a gis njàngalem xale yi fa la nekk li xew Tivaouane boo ko bëggee xam demal abonné ñu li xew ci réew mi boo ko bëggee xam demal nga abonné asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen mbokki jullit ñi nga xamante ni a safoo di seetaan chaîne bi di Tivaouane 24 TV ñoo ngi leen di gërëm di leen jaajëfal bu baax di leen dalalaat di ñaan képp koo xam ne yaa ngi seetaan chaîne bi di Tivaouane 24 TV fa nga nekk yal na yàlla defal la jàmm defal la xéewal de defal la sutura defal la kàttan ak wërsëg bu yaatu te saawaan baawaan ci àdduna bi yépp ki ngeen jaakaar loolu xàmmee ngeen ko lool muy Serigne Cheikh Moukhadam Al Amin ñuy amaat mbégte ko jaakaar la waat ak yéen waaye amaat mbégte ci di leen dëgtalaat ki nga xam ni ku nekk xam na ko ci faj soxlay jaam ñi euh, ci wàllu baatin ak ci wàllu xam Euh, yu bari jaaroon fii ci wàllu euh, équipe nationale beeg yëpp waaye tey nag dañoo jël lépp tegee ko ne ñëw wan leen nag. dëgg-dëgg li nga xam ni moom mooy liggéeyu Serigne Cheikh Moukhadam Al Amine ndax gis ngeen ko rek euh, ci li xewoon coupe du monde bi waaye ñu wan leen di leen liggéeyam dëgg dëgg dëgg dëgg coupe du monde bi daf ci doon dem rek ngir euh, bëgg réewam waaye ngir jàpp ci réew mi waaye dëgg-dëgg liggéeyam nag tey moom lañ leen fas yéene wan moo tax tey ji ñu daal di dugg ci euh, barab bi nga xam ne yu bari ci yu muy def ci wàllu baatin fii la koy defee. fas leen ko deugtal waye fas leen ci waxtaan ak yeen ci walu batil xam ngeen ni bo leen gisee li rek di ngeen xam ni deug deug deug sëriñ bi kangam la ci walu batil ci lolé nak dañ koy bayyi mu nuyoog mbokki internet yi nga xam ñom ñoy ñooy ci Tivaouane 24 TV sëriñ ñu ngi lay nuyu. Ah, ñu ngi leen di ziar di leen nuyu adina bi yëpp di leen ñaanal yalla wër di ñaan yalla sutura di ñaan yalla xéewal di ñaan yalla jamm ci adina bi ginaaw ban ko ñaanalee wa adina ñu ngi koy ñaanal wa Sénégal di ko ñaanal waa Amérique du dëkk ba nga xam ne fa lañ yàlla boole ñuy dem di ñëw foofa te yàlla boole ñu ak waa Amérique muy sunu réew di ñaanal képp ku fa nekk di fa yeewoo di daan sa doole pour rek loo dimbalee say jur di ñaanal waa itali waa Espagne waa Angleterre ak fu waay mën a ne ci àddina daan sa doole rek tax laa jóg ak loo dimbalee sa njaboot ak say waajur man nag damay faral di wax ne maay sëriñu Modou Modou yi ndax ma la yàlla boole ñoom ñu bokk nekk ci réew mu kafa ne moo xam la lay problème ya comme nag yàlla man la leen booleel te may seen xarit di seen mbokk di seen frère di ñu may wax Cheikh Al Amin maa ngi nuyu dëkk bi nga xam ne fi la ma baax fekk ma fekk fi baax muy Tiwaan bu seex Seydi El Hadji Malick bu Cheikh Seydi Aboubacar si bu seex Seydi Hadji Mansour di nuyu njaboot yi nga xam ne ñoom ñëpp mag ñoo ñoo leen euh, meññ bañ ca jógee ñu dem tuubaa ziar xalif général des Mourides jóge fa dem Ndiassane dem Laayeen dem Ñaseen dem fépp fu magum diine ne ba ci waa jàngu bi ñu bokk nuyu ñëpp ndax réew mi ñoo ko bokk dëkke di ñaan yàlla def jàmm ci réew mi lépp luñ fi waxtane muy ngeenel yàlla nañ ko bokk jariño ci barki yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma sha allah serigne bi nuyoo bi amna solo tay nak serigne bi dañ ko fekk ci bërëb bi nga xamni tabarakallah fi lay fajee soxlay jaam ñi ñu fekk fi ay mbir yu doy war yu yeme waye fekk fi photo sangam bu tedd be di serigne abdul Aziz si Al amin nga xamni mom moko moo ko lijaaza loon bind lijaaza jox ko ba tax ñukoy wowe serigne Cheikh Moukhadam Al amin yu ci bari daan ci dik leg serigne bi nak fi ñu la fekk tay ji moy fan waaw fii mooy fi nga xam ne moom la ñuy wax euh, fi laay composé saafara yi ak sunguf yi ak di di fi di fi di fi dugal nit ñi mooy laboratoire bi ndax bu nit ñëwee amee feebaru xel balan laa dugal ci ginnaaw fii lan lay dugal saytu maanaam xool lan mooy sa problème jàngat ko buñ ko jàngatee ba pare ci lan lay xool maanaam composant sunguf yi fi ne wala bu fekkee ci wàllu alxuraan la ñu xool maanaam ci bagage yi nga xam ne suñuy maamanu ko bàyyi bataleel mhm. ak yi nga xam ne ñoo ko gëstu yi ñu mhm. mag ñi jox mhm. ñu boole yooyu yëpp def ci composition kii nga xam ne maak moom ñooy bokk di liggéey di Mansour yàlla def muy koo xam ne wax dëgg yàlla ku nu xam la ku jàng alxuraan la ku mokkal la ku ku ku xam ni mbir mi doxe la bu ma fi nekkul it moom moo yor mbir mi Mansour mi parce que ñaar la yàlla boole ñuy liggéey ak ñeneen ak ñeneen ñu ne ci suñu ginnaaw du dëgg maasu yàlla def na démb rek yàlla def na nit ñëw na fi bi mu fii ñëw dañ koo jàppoo bi mu ñëwee ñu dalal ko tatagal ko defe naa yónnee naa la audio bi macha allah yàlla dogal bi mu ñëwee wàllu xel amee woon na ko yaram wi diisoon na tànk yi bañoon na waaye bi muy génn moo doxal boppam ñibbi yaakaar naa loolu la ñuy sante yàlla waaye du du def ay polémique ci àddina mhm. dafa am loo xam ne tey si c'était à refaire maanaam du nu def mooy lan Moy di tontonte mba ñi werante parce que nit la tax nga mag la tax nga ngay mag nit ya ko koy wan la tax ngay maaseeg nit nit ya ko koy wan te olof ndjay dafa wax ne andando waralul ak maas nit di ngeen and waye du tax ngeen maase man sama bët fi ma ko teg mooy lu askanu sénégal ci lima yalla yàlla dénk mais du du lumay perturber sénégal wala lumay waxé lu ñaaw luma sénégal di xébé ma ngi gëreum ñi nga xamné ñomay déglu ci adina mhm. soppal ma sen bop bama xam ko dima wo dima ma di ma nemmiku di ma ci lancer bima ma ne à travers Tivaouane 24 adina daf ma cee xam ku adina yi déglu nag waroo wax lu la àddunay xeebe maa ngi ñaan képp ku may déglu dégg njariñ waaye bu ma déglu dégg lu dul njariñ loolu daal laa doon ubbee ci lii macha allah tey sëñ bi nag euh, dañ fee ñëw gis fii yu baree baree bare ci ay xeetu saafaraak mhm. ay xeetu gàllaaj waaye xam naa ni yëpp sax mënuñu koo laajte waaye nañ ci tànn yenn rek laaj la lan mooy waral ci wàllu ndox mhm. lii ma tiim nii mhm. lii am na yeneen yu mu àndal yu ma làq ca biir. mooy butéel yi. waaw butéel yi nga gis nii. maanaam bu nit mu wóor la kii dafa tëju. lépp lu mën a tëju ci moom moo xam wërsëgam la moo xam wàllu commerce la moo xam wàllu wàllu maçonnerie la moo xam wàllu wàllu wu mën a doon kullu fàndin ci wàllu wërsëg lii ci lay dox maanaam nit du ko sangoo lu mat juróom-ñaari fan te wërsëgam suppikuwul macha allah man bu ma bànkee tey mbir yi xaw a dëgër lii lay dugg laal ko léegi yàlla ubbi ma macha allah yaa dégg lii moo tax ñeewuma kenn lii moom mooy sangat bi laa tudde ñeewoo kenn uh-huh. yii moom laa tudde dooñee kenn macha waaw bu nu duggee nag ci yi nga xam ne ñoo ne ci leket gi uh-huh. lii wàllu bayre lay dox uh-huh. maanaam benn sunguf la bu nu booleeg tàggu sagal duma wax sunguf ba parce que bugguma kenn sàcc ko sunguf la bu nu boole ak tàggum sagal bu ko booleeg tàggum sagal dañ koy boole cuuraay bu ñuy wax mañankase mom la nga koy booleel sàjj ko buñ ko sàjjee amna ben secret boy dor ci walu batin boko doré ki day indi xaalis do xey bank moy li ci bir ci li ci bir leket gi ni ki amna turu yalla buma koy bolel jox lako wa bejeen bi ci bir leket gi ni wa bejeen ni ki manam bu doon mbeur doon beure ji tay dama koy jox mu yobale ko bu mag koy jox am na kànnaar bu nekk sama biir saak bi moom lay àndal su demee bu tëjee kànnaar bi jël béjjën bi wër géew bi fukki yoon ak ñaar hmm. daal di samp béjjën bi ñaan yàlla li mu bëgg ci géew bi du daanu ci bis boobu bu tëjee kànnaar bi du daanu mais day ànd ak benn secret bu ñu liggéey dugal ko ci gémmiñu jën hmm. jën wu mag hmm. ñi ma xam ci làmb xam na ne kii yàgg naa ànd ak man ci làmb kii boppu tànn la dafa am secret bu ci nekk. dafa am noo ci denc sa bopp tey booy génn da nga koy dugal ci sa biir poos moom ak biim ngay boole dugal sa biir poos. boo demee ci mbooloo ko la fa jéem a toroxal yàlla wan ko fa boppam. est-ce que waaw bii am na benn secret boo xam tey suñ ko doon liggéey tey dañ koy bind yaakaar naa fa yii ñu ngi ko doon boo ko bindee da ngay wut euh, kiiw mbaam ngonk neefere mbaam. Mhm. boole ko morceau bu ñuul. ak kaani ak poobar boo ko jëlee soq ci béjjén bi takk ko su la nit toogee ci mbooloo toroxal la soo waxee li nga wax bala ngay jóg mbooloo mi yàlla won ko fa boppam est que waaw waaw am na lu ma gis mel ni jël noonu loolu lii waaw sëriñ bi ci lan lay dox waa kii moom mhm. mbanaat moo ne ci biir mhm. ak ay aayox yuñ ko boolee liggéey ko kii bu dee ca Amérique kaaraange mënul lii kii waxuma la ab ak kër waaye am réew mën na koo aar kii day aar gox kër gu mu fanaan musiba du fa fanaan soo ko takkee boo duggee ci oto doo accidenté soo ko takkee boo duggee ci bato ñu ne da a bato bi du dañ foo ko takkee macha allah di nga dem di nga ñibbisi te yàlla dina la dimbali doo fekkee musiba da nga koy dégg rek mm-hmm. macha mais dafa am sangat bu mu àndal bu ñuy wax wokk lam mm-hmm. soo ko bindee dañ koy boole ak gattax gattax nga koy boole lakk ko mm-hmm. gattaxu daaw moo nga koy booleel sangoo ko. kii boo ko sangoo ci àddina bu la neexee wàllu muslaay nga bàyyi ko. yam ci lii. macha allah boo ko mënta takkit bu fekkee diplomate la da nga koy def sa biir saak diplomate. Mm-hmm. bu fekkee koo xam ne euh, kuy kuy dem la nii te mënu la takk liin mu wut benn euh, saagam wala daraam di ko ko téyewaale mais kii moom ku ko takk aaru. ci baaxu yàlla macha allah am na solo mm-hmm. sëriñ bi xam naa ni li fi nekk yëpp sax duñ ko mën a laaj pour dëgtal ko waaye que gis nga même bi waaw tey jii nit fu ko ngelaw seytaane jàppe wala rab jàpp ko wala jinne jàpp ko su duggee ci néeg bii ma jël sunguf bii rek def ci taal bi day simmiku daldi toog nga jël sunguf bii boole koog moom defal ko ko ci bakkan yi lépp luy ngelaw walla lu mu lekk lu bon lu ne ci biir biir yaramam balaa génn néeg bii mu set wecc est-ce man lu feebaru rab feebaru seytaane feebaru ngelaw lu mu garaaw garaaw andil bala ngay génn kër gi waxuma la ay ci kàttanu yàlla da ngay wér bala ngay génn kër gi. macha allah waaw loolu moom yàlla may nañ ci te wax dëgg yàlla ñi fiy ñëw it ñu koy séqalanteeg ñoom ku ko séqalanteel gisu ko na ko bind ci suuf émission bi. est-ce que waaw sëriñ bi yii yu ndaw yi ak yu mag yii gis nga bii. Mhm. dafa am lim bu nu bind ci war a fa naaw makaanan aliya mhm. moom moo nekk nii. Mhm. am sungu fi ñu ko booleel composé ko. su fekkee nit ki dafay def examen. wala muy def concours. wala muy xëcc daf koo jafe. mu bëgg caa yëkkati ko am ca ndam lii nga koy jox mu sangoo ko fu kawe am na loo koy booleel maanaam tàgg nga koy booleel am nu mu ko def yëg ci kaw sangoo ko juróom-ñaari fan. bu dee yu mag yële wàllu kaaraange lay dox. maanaam su nit ki nekkee ci. di xëccu dara comme muy waajal ak combat. Mhm. wala muy waajal euh, xare wala muy waajal comme militaire yi demi guerre ak yooyu. Mhm. day ànd ak ay bali fetal. Mhm. dafa am li mu balu fetal yoo koy booleel mu boole ko moom sangoo ko. bu dee bële falaxeek naasi la mais dafa am nun ko binde sa takkandeer nga koy booleel sangoo ko ku lal ku mënta jàpp sa takkandeer dootu la jàpp. biteel yële. dégg nga ma bu dee bii la douze mille waduudu la biteel yu ndaw yi. Mhm. douze mille waduudu lañ bind nii. Mhm. boole ko xaatimam. Mhm. boole ko yam war a àndal yépp pour nit mën a am bayre sooy yëngu ci commerce. soo bëggee soo maanaam koo xam ne jëkkër la koo jafe mhm. koo xam ne nit ñi bëgg la dalaa jafe koo xam ne maanaam foo nekk ci nit ñi dañ naan dangaa soof nga bëgg a saf nit ñi bii moo koy def dégg nga bii tegee nii nag ñaari biteel yi nga gis ni sirul dunyaa la mhm. sirul dunyaa lan bind noonu daal di koy def ci biir foofu mhm. dunyaa moom maanaam xam nga ne mooy àdduna rek macha allah bii tegee nii nag waaxaa la isaa waxaat yi moom la bind junniy waaqia cent waaqia astafurlah téeméeri waaqia moo nekk nii bu ànd ak xawaatimam am na yuusuf bu nekk fii boo xam tey nu bëggee àddina dégg la dañuy bàyyi ba guddi ñu ànd ak yow dem ci sëla yoon bàyyi ba mu guddi ñu sàngala ko fa juróom-ñaari sëla yoon la ñuy dem sang la fa ci Youssouf bi buñ ko defee mooy ñi bëgg a doon président ñi bëgg a doon ministre ñi xëccoo nguur comprendre mhm. loolu pour am turu rëy rëy la ci àddina mais bu buñ la ko defalee ba pare dañ lay indiwaat ci néeg bi fii daal lay tëj ci biir néeg bi 10 minutes donc laa jox ndomb musulaay sinon buñ la ko deful ñu tëj la kaso est-ce que li ñu def làmbatuwuñ ko de. est-ce que macha allah làmbatuwuñ ko. macha allah sëriñ bi am na solo xam naa ne mhm. daal fi may tëjee mooy. Mhm. ndomba yee la ma gis. waa ndomba yi. bii ngay gis ni bii ngay gis ni allahuma salli ala sayyidina muhammad rafiu darajaatin waduudu la am na limam buñ koy bind am na lim buñ koy bind nga sangoo ko du mhm. dëgg mën sóor mais bii suñ la ko joxee dafa am lim buñ la ko joxit nga koy wér soo koy wér mooy tax nit ñi sopp la mooy tax nit ñi bëgg la mooy tax sa àddina dégg sa tur ci lu baax ku la bu la nit jéemee fexeel sax dootoo soof nit ñi bii boo koy def. macha allah waaw gii mooy def loolu ci baaxu yàlla. Mm-hmm. dégg nga. Mm-hmm. bu dee bii. Mm-hmm. ni ñu ko bootale nii. maanaam doom bu am doom ju doom ju amul ndey kenn du ko boot maanaam laytaay lay àndal. maanaam kii lay àndal nu mu tuuti mbootal bootu yi ñuy bootoo moom lay àndal moom nga koy boote. la ñuy bind nag ba ëw ko nii maa lànk ma ko wax. waaye secret bi kuko ko du duggu kasso du fekke musiba. est-ce que lu problème graw graw nga ñibi sa kër. macha allah waaye du ko defal ko jubadi. <laughs> est-ce que waaw parce que man duma je ne suis pas là pour pour pour pour yobbu xalé yi ci kay leen jubadi. Mhm. promouvoir bon waaw waaw promouvoir ma lool. macha allah macha allah sëriñ bi. Mhm. amna solo lool tabarakallah xam di benen mhm. beneen yoon dinañ ñew gën ko yaatal. ndax amna fi yenen yo xam ne. waaw bëggoon la ko lacc mais dañuy bañ émission bi. bu fekente ne comme bi ñu laal ci wàllu ngóore. waaw waaw dama koy faral di wax. je suis le maître de de faju ngoré loolu yalla ma may. bi suma la joxé reen bi rek nga baxal ko diko ko do teulé tële ci àddina. macha allah bu ma la joxee xob yi comme dute lay doon comme dute nga koy def. boo xëyee suba bala ngay ndékki. Mhm. dang koy baxal mais dafa am ay aya alxuraan yu ñu koy booleel. Mhm. bu ñu ko booleeg moom nga boole ak mom nan ko. manam mhm. gis nga am na benn sunguf bu nekk bii sunguf bi dafa nooy gis nga sooy wax nit da koy wan ne ko li ma lay wax maa la ci jiitu gis nga sunguf bi soo ko jëlee nii sa ñetti baaraam yi ngay jàng faatihatul kitaab bismillahi rahman doo doo nooy yi nag ak sag noon daal dina coppet ci sunguf si daal ne yàlla yàlla bu ma manqué kàttan ci àddina yaa xayu yaa xayum <laughs> macha allah macha allah sëriñ bi am na yàlla barkeel am na solo lool tabaarakallah nga tàggoo nga tàggoo ba beneen yoon insha allah xam naa waaw dëgtalaat li ci des ñi nga xam ne ñoom ñooy seetaan di wax mbokku àdduna mhm. euh, maanaam nul n'est parfait et nul n'est prophète chez soi you can be somebody mhm. if you don't have nobody mhm. soo amul kenn yow doo kenn su fekkente ne bëgg ngaa doon nit nag te bëgg a nite da ngay bañ di déglu ki nga xam ne jëmul fenn li ci sa ginnaaw danga koy weesu li ci sa kanam nga dëgmal ko ànd koog yàlla ak ñi bëgg a ànd ak yow am esprit de dépassement di ñaan yàlla réew mi jàmm def ci nekk ci di ñaanal kilifa diine yi kilifa aada yi di wax ne le chef de euh, le président na yaatal xolom opposition bi nañ yaatal seen dënn militants yi nanu xam ne réew mi ñoo ko bokk. ñun ñëpp bu réew mi tàkkee du nu amal njariñ li am njariñ ci àddina mooy fexe ba réew mii nekk ci jàmm ñi ko nekkee nekk ci jàmm ñi ko dëkkee am jàmm président ñu ngi lay ñaan nga gën a boot sabu askan gën a jàmmoo ak ñoom yéen ñi nga xam ne yéenay opposition su jot ci réew mi gënee ci yéen yàlla na leen ko yàlla jox te bal du tàkk dara du am yàlla na yàlla def jàmm ci Sénégal ci barke àjjuma ji